ñu gis ni que applicabilité bi pour mu gën a yomb dafa amoon yeneen accompagnement yu état bi waroon a teg pour que ñu mën a ko jox commerçant yeeg industriels yi ñu mën a jàppale ñëpp ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yëngatu ci euh, application prix pour que ñu mën ci dem le plus rapidement possible ndax askan bi mën ci gis seen bopp ci kaw loolu euh, ñu xool aussi ni du ñu yem rek ci nan la ñuy def ba consommateurs yi ak population bi sentir ni wàññi nañu njëg yi mais ñu teg ay solution yoo xam ne ni daf ñuy may li nga xam ne ni moom la ñu soxla ci réew mi pour dundee ko te ñu war ko jéggaane maanaam ñu constituer stock de sécurité boo xam ne ni daf ñuy yóbbu fii ba fin d'année loolu ñu tamit mu bokkoon ci waxtaan bu am solo boo xam ne dañ ko amoon tey ak acteurs yi mu nekk nag ay solution yoo xam ne ku ci nekk génnee nañ ko ñu war ci euh, mën ko teg ci table gouvernement bi mu doon ay solution yoo xam ne dañu permettre fii ak weer yu ñu jëm duñu am problème disponibilité suñu produit yi mais surtout aussi dañuy sécuriser prix bi nga xam ne moom lañ koy jëndee parce que tey gis nañu marché international bi ni muy yokkoo di daw bu fekkee ni dañu jàpp ne nii lay continuer li nga war a jëndee tey boo ko waree jëndee ci téeméer dalay wóor ni que boo toogee fii ak ñetti weer di nga ci teg téeméer ak juróom fukk wala téeméer ak juróom benn fukk te comme ñun ala kulli ak lu mënti ñàkk dañuy dem importer mieux ñu jënd bi yoon tey teel a jënd lu ñu soxla di ko du di ko di ko di ko denc di ko constituer nga xam ne ni ëllëg bu ñu demee ba toll ci foo xam ne dañ dañ ko soxla ci bitim réew dana fekk ni ñun jëndoon nañu ci prix bu baax ba pare denc nañ ko te du am problème mu

état bi dafay jàpp ne nekk lii bor la suma ma ak yéen nangul naa leen ko ñu xayma ko mu nek ci 25000 mille tonnes ñu def la même chose ci li nga xamné ni moy dewlin bi nga xamné ni dafa dugg nek ci bidon 20 litres ñu xayma won ko mu nek ci 480000 cent euh mille bouteilles euh, bidon amone ay importateur ak ay distributeur yu ko yoroon ci sen entrepôt te fekk ni dañoo fay douane ba pare affaire bi dugg mesure bi ñëw dal sen kaw ñooñu tam état bi d'accord na pour jàppale leen defal leen une mesure de soutien ñu xool ci suukar bi ne suukar bi dañu war a xool naka la ñuy gën a sécuriser suñu approvisionnement donte amuñu problème prix ci niveau local bi mais boo xoolee ne que fii ak weer yi ñu jëm dañu war a jënd suukar bi ci ci ci bitim réew mieux ñu jënd ko tey ci prix bi nga xam ne ni moo fi nekk ci marché international bi ndaxte ba nu demee bu ba ci kanam comme xam nañ que tonnes yi jënd mois de juin tey ñu ngi ci 580 euros wala 600. te mois de juin mën nañu 700. Nous sommes balaa ñu jënd mois de juin ñu jël ko ñu waxtaan ci ak industriels yi compagnie sucrière ñu waxtaan ci ak importateur yi ñu ne question bi ñëpp d'accord nañ mais dañu koy étudier parce que am na ay détails am na ay yoo xam ne ni frais financiers ak yooyu ak garantie yoo xam ne dafa war a nekk ci banque bi loo xam ne ni comité technique moo ko mën a lijjanti ñu ne nag léegi dañuy constituer comité technique ci wàllu approvisionnement bi nga xam ne ni dañuy xayma xool lépp lu ñu soxla fii ak weer at at mi di jeex ci ban njëg la ñu koy jëndee constituer central maanaam boole euh, groupé achat yi ñu am un bon prix ñu jëndandoo ko dugal ko ci réew mi assurer distribution bi fii ba fin d' année deux ñu jàpp ni aussi commerçants yi importateurs yi ak industriels yi engagé wu nañu pour que dispositif application prix bi ñu gën ko renforcer ñu permettre consommateurs yi gis ci seen bopp incha allahu rabbi fii ak maximum ñu commencé ko di ko appliquer ba nit ñi gis ci seen bopp. ñi gën a am solo tey ci maillon bii mooy yéen presse bi informer leen nit ñi ne leen sukkër 600 francs lay jar par kilo ceeb bi nga xam ne amul parfumé biñ parfumé wul riz ordinaire 275 francs lay jar par kilo diwlin bi nga xam ne mooy huile de palme 1100 francs lay jar par litre ñett yi dafa war dañ ñëpp duñ ko war a xam ba ku jóg dem ci boutique ba xamal ko sa bopp ba boo demee ci boutique bi bu waa ji waxee le compte da nga ko lii lay jar ndax xam ngeen lu tax décision yu am solo état bi. il parle de cinquante milliards ça fait plus que soixante deux milliards la état bàyyi pour loolu mën a am soixante deux milliards boobu mu bàyyi nag seen alal la yéen sunu alal ñene ci hôpital bi ak ñeneen ak ñeneen loolu la jël pour delloo ñu ko kon wóor ñu nangu keneen jóge fële ab commerçant bu mën a doon ak noo mën a positionné woo nga jël ko def sa poos lor nit ñi ak loolu leen mën a jaral kon donc su fekkee ni am na kenn ku constaté ci koñam ne

état d'accord ne lii ngeen fayaloon douane donte am ngeen lu ngeen ci perte ci ceeb ak ci diwlin la ngeen ci nar perte man état dinaa leen ko rembourser mooy lii ma leen wax ne le am na 12 milliards de plus yokk ci 50 milliards yi ñu doon wax parce que 50 milliards bu njëkk ba ceeb rek la woon ceeb bi ñuy importé woon ak riz de la vallée tey nag gis ngeen ne diwlin dooleeku na ci te diwlin boobu fi nekk di stock bu ñu dédouané woon ba pare su woon loxoom ñun lim ñu dikk mat na 22 600 en tant que importateur kon duñ ko mën a jaay prix bi état wax muy vingt mille cinq cent perte boobu ñu ci perte nag état ne loolu ngeen ci perte dinaa leen ko defal ay avoir bu ëllëgee bu ngeen di fay douane ngeen fayee ma ko douane ne ko ku ne indi li nga ci li nga indi woon ci ay conteneur ma xam ñaata la vérifier stock ba xam ne mi ngi fi comme maa la ko jaayloo vingt mille cinq cent muy perte ma rembourser la reliquat bi donc loolu aussi lu mat leeral la def naa ne loolu mooy lu ñu lu ñu fi tënk